ndax kuñ saaga sa baay nga mer kuñ saaga sa yaay nga mer donc ku ne bëgg nga sa yaay ku ne bëgg nga sa papa mais ay gone boo leen yoree ñu weesu vingt ans vingt et un ans vingt ans te ñu bokk ci lépp di voté bokk ci réew mi da nga leen di déglu ubbi leen bunt yi booleel leen ci gestion du pays te quand on parle de la démocratie la démocratie c'est mais c'est le jeu du nombre. ñi gën a ñi ëpp ñoo war a ñoo war a jiitu. mel noonu. mënuñoo waxtaan su dee ni mu ngi am. di ko ignorer mënuñoo continuer comme ni nga waxee nii. Mm-hmm. ay yoon di ko jox dëgg te duñ ko appliquer. mënuñoo continuer également comme ni ñu koy gisee ay nitam ku ci wax ñu tëj la comme ni nga waxee nii c'est-à-dire soo ne yaatu dënn dañ ñu bëgg wax kon que ni responsabilité bu delloo ba ci président Macky mooy ne am na nu mu war a taxee nu mu taxeewul. il faut que ñu boole ko ci il faut que ñu boole ko ci le président Macky Sall doit s'ouvrir et parler il doit. bañ déglu ñeneen ñi koy ñi koy xambal taal bi non non qu'il Sonko ku ñu wax ñoom ñaar ñu toog wax. génne ko fi mu ne. ah oui qu'il qu'il parle ça la justice c'est pas pour fermer les gens c'est pas pour enfermer les gens la justice c'est pourquoi c'est pour stabiliser le pays gis nga yoon wutul dëkk. jàmm lay wut parce que léeg-léeg dëgg dëgg rek nga ne dëgg exclusif mais ça peut créer un désordre boobu dëgg boobu ba baax dëgg boobu baaxul jàmm moo gën lépp te tey jàmm. Hmm. ni nga ko mënoon amee mooy président Macky Sall calmer tous les joueurs oui qu'on appelle tout le monde et qu'il grand. parce que il peut être grand il peut être grandiose même mais qu'il sorte grand. te loolu mooy fii ñu ci toll nii. waxtaan lay ah. ah oui ah. waxtaan xaw ma nu ñu koy defee je ne connais pas les conditions il a suffisamment de talent autour de lui pour organiser waxtaan waxtaan waxtaan seet nu ñu def. waxtaan ak Sonko oui pourquoi pas waxtaan waxtaan. waxtaan ba réew mi dellu si waat ci jàmm parce que pétrole bi jàmm ko gën gaz bi jàmm ko gën zircon bi jàmm ko gën te attention attention attention on n'est pas à l'abri de ces de ces de ces choses qui se sont passées ailleurs parce que tous les tous les tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour que Sénégal dem nuñ ko bëggewul ñun jàmm lañ xam jàmm lañu bëgg jàmm boobu nag ki nga xam ne kenn dong lañ ko mën a waxal mooy tey ki yor leng yi même si a deux mois trois mois. waaye mais ces deux mois trois mois ça peut continuer parce que si laisse la situation comme ça. Et s'il fait en sorte que voilà quelqu'un proche de lui continue et vient continuer ce qu'il avait fait. Hmm. mais on est toujours dans la même dans la dans la dans la dans les. oui mais xam bi ngay wax mooy lan mooy ñi koy gëmloo ni jàpp bi nga jàpp Ousmane Sonko ak charge yi ñu teg ci kawam xam nga la na nañ ko tegee nële. waaw mais c'est ça. xam nga la dama ne léegoo li ma la wax kay dama ne man individualisé wu ma ci ay ci ci ay. lii lañ ko teg lii hmm. mooy dëgg wax na dëgg waxul dëgg waxuma loolu man ah. dama réalité laa la wax réalité ak lu mënti xew réalité réalité bi laa lay wax réalité bi mooy Sonko est un phénomène politique dans le Sénégal loolu mooy réalité numéro un xam nga maa je une déformation mathématique donc première hypothèse Sonko est un phénomène deuxième hypothèse jàmm laa bëgg troisième hypothèse sinon conclusion il faut trouver les moyens de calmer le pays Et la meilleure façon de le faire, c'est de ne pas essayer de de de de de de politiquement ou euh, une partie de la population. La meilleure façon de le faire, c'est d'amener tout le monde dans la construction de la nation. te mën na nekk. mais eh, mën na nekk. li nga wax ni mais xoolal dama lay wax ne dama la wax benn affaire. mën naa benn xam nga la photo laa téye derrière toi me rappelle des choses. <laughs> oui Covid Covid Sonko ñëw ki mais ki nga Covid. Hmm. menace bi ñu am a gën a graaw Covid téeméeri junni yoon. Hmm. ah oui la menace aujourd'hui qui pèse sur la nation qui pèse sur notre république est beaucoup plus dangereuse que la que, la menace de de de de du Covid-19 autrement dit c'est le moment plus que jamais de calmer le jeu de faire des discours d'apaisement de dalal nit ñi réalité nga boole leen ci oui tout le monde ne peut pas être comme comme comme comme Macky Sall tout le monde ne peut pas être comme Sonko non plus nous sommes différents nous avons des tempéraments différents mais c'est ce qui fait de nous une nation une belle nation une nation différente et c'est ça qui doit nous pousser aujourd'hui à aller de l'avant à poser le grand pas le pas le plus difficile c'est de cette jeunesse liée à Ousmane Sonko se voit une partie de la nation et ces gens qui sont aussi et aussi en même temps du ma ci Macky Sall rek. Hmm. ñu ànd ak Sonko aussi il faut que ñu comprendre que réew mi du ko ànd ak Sonko rek doo nit. ça aussi il faut que ñu arrêté ko. il faut que ñu arrêté réew mi ñun ñëpp a ko bokk ñun ñëpp ñoo ko bokk tiitalaate joxoñaate wax nit lu bon. jariñul dara ça sert à rien. Ouais. heureusement heureusement moi j'ai fait j'ai demandé. Mm. des amis communs ma laaj leen kii Sonko ñu ne ma li nit ñi di wax dañ ko koy waxal waaye moom melul noonu nit ku baax la nit ku am jàmm la nit ku dal la ah loolu laa dégg ci moom. Hmm. donc je voudrais que ñi ko wër aussi ñu arrêter ce discours va guerre suñ demee guerre personne ne boo demee bay laaj ñi ko jege kuy Ousmane Sonko xanaa kon déggoo ko wala li mu wax loolu moom. non déggoo li mu la rek nga ko jàppee waaw non non non non non déggoo dégguma kan parce que Ousmane aussi. Ousmane la ak parcours am ndax dégg naa Ousmane la ak discours am. ndax dégg naa Ousmane. oui non non man déggu man Ousmane nee naa la man mosuma ko gis. je veux dire su ma la waxee loolu mooy nii pas gisoo ko mais il occupe l' médiatique. Ousmane ak ay discours am Ousmane ak ay déclaration non bien sûr ñàkk xëy na. mos bien sûr man xoolal man man man du ma man du ma man damay damay damay informé wu. je de la source. nit ki su may xalaat ci moom dama koy dem di ko xool. Hmm. déglu ko bu baax il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas petit hein. c'est un gars qui a quand même un discours euh, quand même qui porte. Sénégalais yi on ne peut pas we you cannot fool all the all people all the time. ça c'est c'est un c'est un c'est un proverbe de Bob Marley Bob Marley qui dit que tu peux pas euh, tout le monde tout le temps c'est pas c'est pas ça donc yu gën a ful all the people all the time il a quelque chose qui dit que su waxee nit ñi di ko déglu parce que aussi quand même il am na am na kàddu ci nit ñi. Hmm. loolu waxuñu ko mais fi ñu toll laay wax fi ñu toll nag loolu la laaj mooy poser les jalons vers une pacification politique. ensuite enchaîner vers même une transition politique qui donne l'ouverture transition oui politique man loolu laa gëm transition politique oui oui aujourd'hui il faut peut-être ñu organiser une transition politique en 2024 ah oui ce serait le meilleur cas am fi kenn koo xam ne dafa ñëw pour un temps déterminé mu nekk président pour un temps déterminé bu demee ba ba ba atam yooyu jeex ñi nga xam ne ñu am ambition ci réew mi te réew mi wóolu leen ñu door a teg ay plan ay projet aujourd'hui le seul projet qui vaille hmm. le seul projet qui vaille man may déglu ku wax loolu laa lay déglu mooy le projet de pacification le projet de stabilisation le projet de paix pour le Sénégal man boobu projet dong moom a ñor ñeneen ñi fi nekk di wax ñi ñëpp suba ñëwee dinaa def nii pétrole bi dinaa def nii dinaa def nii dinaa def gaz bi dinaa ko kii dinaa def agriculture c'est pas ça bala nga ne naam ne fa boo ñëwee bali di takk doo pétrole doo gaz doo bay doo sàmm. te lii ci lan la nekk ci xol yi li nga wax naan sénégalais kontaan non non il faut te li mooy. non et puis il le faut. mooy je propose de cent limite. oui qui est une émission grandiose pour demander à chaque sénégalais. ginnaaw mag ña kilifa yi léeg-léeg wax ak ñoom dafa yomb waaye may wax ak sénégalais yépp ñi may déglu. Hmm. tey jii guddi tey wala suba ku tëdd na jël vingt minutes trente minutes jéem a def effort accepter sa moroom accepter ko ca na mel wuy diw mii de bokkuñu waaye nag bon terewut ñoo bokk Sénégal hmm. nañ dal nañ seet yàlla nañu yàlla dimbale ba réew mi am jàmm. ku ne non seulement accepte sa morom tàllal loxo sa morom mais ubbiku pour ëllëg mu ne loolu laa gëm. Mm. loolu laa gëm moment bi ñu toll nous devons organiser une transaction une transition une transition d'abord des cœurs une transition de l'esprit mais une transition à transition administrative politique pour que nit ñi song nag ëllëg ak ak leer. ak lu leer te bu ñu deful ndànk. mën na basculer te loolu kenn ñaanu ko yàlla. kon ci yow yoon wi du candidat yi ñu ci ëpp yoon wu ñu jël mooy nu ñuy def ba bokk ñii di dérouler seen programme euh, ñee tamit nekk ca lañ war a ne. justice bi ak lu ñu mënti wax it moom it ca la mu ne. Mhm. ba tey ni ñuy doxee nii ñuy wane ni en tout cas processus bi ba fi ñu ci toll nii. Mhm. lépp a ngi jaar yoon. loolu façade la ci yow kon. non façade la non non dafa am. maanaam waaw mayuñu. non garantiruñu ci li ñu jëm. xam nga mën nañ cee génn jàmm man xam nga man lu sama problème mooy je parle le langage politicien. oui moi j'ai un langage pense un point c'est tout. langage politicien le le le vrai langage la vérité la vraie vérité comme on dit <laughs> la vraie vérité mooy lan réew ñaari tendance bi am. ñii ñoo fare nii ñi ñoo fare nii ñi fare nii dañoo bëgg a continuer continuer tëj ñee téye leen foofu ñu tëj fa nangam nangam ku ne foofu boo waxee ñu ne pipe ñu tëj nangam nangam loolu loolu lañ ñi fare à gauche ils aussi ñoom buñ ñëwee ci ñoom ci ni ñuy waxee non buñ ñëwee teg réew mi si yoon ñee ñëpp luñ sàccoon ñu kii fii ku sàcc ku kii ñu tëj ñu tëj non oui réew mi am na yoon te yoonam dina dox tey dina dox ëllëg te dina dox c'est pas ça las bi mais nañ bàyyi tiitalante bi nañ bàyyi xoqalante bi nañ bàyyi tiit bi nañu créer une une une une paix une stabilisation du pays loolu nag dama joxe proposition je connais pas tous les oui. tous les moyens pour le faire mais xam naa ne buñ ci jógoon tey suba parce que mag ñëpp ci war a jóg même mag ñi sax léegi dañoo far mag ñi nga xam ne ñoo ngànk réew mi sax ku ci ne am na tendance bu ñu lay farale ay ah kilifa gu mag goo xam ne kilifa nga ci réew mi ñu ne la au lieu que nga nga réew mi pour réew mi daal nga ñëpp dañ naan ah diw mi de du xaritu kee diw mi de du xaritu diw mi de que quand même que ñu trouver ay kilifa kilifa diine yi danañ danañ non kilifa diine yi du waxuma kilifa diine yi. waaw non dama ne fi ci dolli waaw. voilà ma ne ñi man ñëpp daal. Hmm. ñi ko man ñépp tey mag ci réew mi te am fi kàddu war nañu travailler à ce que réew mi dellusiwaat ci ci jàmm. lii lii ba lii kañ la balaa ñoo yegg ci. naan ah non c'est urgent c'est urgent. c'est urgent urgent urgent urgent urgent urgent. urgent. non loo xam ba lu ñu xamul. non li ma xam. alerte bi dafa man ci. dafa yegg non non man ci nit ñi laay liggéey. ci laay xëy ci laay gont xam nga yow da nga yor sa studio di woo nii di convoqué kii man hmm. may xëy di nuyoo di laaj di kii di kii fii nit ku ne ci li mu nekk ba nga ŋànk meram kee ngay kii fii kee nga naan boy bi du dara ñu waa kër boy bi ñu ngi naan ñii duñ tus nangam nangam ku nekk ngay wax li la wax li la neex ma xam li ma xam li ma xam tamit mooy ne oui président Macky Sall moo yor réew mi moom lañ voté loon en deux mille en mille neuf cent mille dix jox ko réew mi mu war a jeexal mandaam donc mooy yore responsabilité mais li ma xam leneen tamit mooy ne Sonko est un phénomène est une existence politique réelle une réalité politique. mooy ah, dañu ànd ak moom ci dëggu ñi ànd ak moom. ah oui yegg nañ ci moom foo xamante ni. non non nit maanaam du ñu bàyyi. ñu ñàkk a nit ah. ñi booy yii jeunes yii. kan hmm. moom lañ gëm. moom lañ gëm. ñun ñëpp amul kii amul kaa. Sonko bu génnoon tey. dama lay wax tey dama lay wax rek mu leer mbokk ma dëkk Sonko bu génnoon tey ñu dem élection mu bokk ci élection yi dix heures mën nañoo tëj urne yi dix heures. foofu li ma wax dix heures pile il devient président. lii mooy lii mooy expression bi. lii mooy réalité bi bi nga doon doon teg réalité non lii mooy réalité politique du Sénégal actuellement autrement dit c'est ça la def nay erreur oui beaucoup mais c'est ça ça ça loolu térewul réalité bi moo nit dëkk def nay erreur nag yu bari erreur de justice erreur politique erreur yu bari def na ko ñu ànd ak moom continuer di ko def waaye terewul réalité bi mooy loolu. ñoo ñoo ne ci xew la. absolument comme tey mi ngi mel rek. Eh. mi ngi mel ne tey. un grand joueur de football nekk ci ngandum équipe mais joueur bi day day génn guddi day dem boîte day dem mais nag mooy mooy la mooy mooy mooy mooy régler problème bi bu duggee ci terrain bi Sonko Sonko mu neex la mu naqari la moom la il faut quand même ñu boole ko ci jeu bi je oui, ne ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire oui. que tu es président ou quelque oui, chose comme ça mais quand même il faut trouver un moyen de lui parler de dégeler la situation pour que la situation se calme. et que tey li li nga bëgg a wax mooy ni su Sonko wane woon ni rek am na afiyam il est libre de tout mouvement commencé comme ni mu daan defee rek wane ni sax ci yuñ jëm it taxaw na rek. loolu mun na. mais mais mais mun na mun na créer waaw amener Sonko à porter la paix. amener Sonko à ah. porter la paix. l'amener à porter la paix. parlant avec lui ah kii nit ñi dal xam ni nangamati nangam mais mënoo di ko bunduxataal di ko kii di ko pare ba pare na continuer tamit di di di di yaakaar ne réew mi dañuy continuer nii rek euh, après saison no non non c'est pas ça c'est pas possible. Hmm. il faut il faut quand même qu'on aille vers quelque chose de mieux quelque chose de mieux c'est une accalmie une paix. parce que keneen ku ñëw tamit hmm. tant que cette situation là n'est pas réglée on est on a toujours des problèmes keneen a doon parce que dina mën na am on va on va muscler on va mettre des gendarmes partout on va aller aux élections oui mais bu ñu demee élection tamit ku gagné comment tu vas gouverner sans Sonko comment comment. na koy defee lan doo am légitimité mais nan nga koy defee nan nga koy defee wax ma il faut que nga boole ko ci loolu nag. teel ko def léegi ñu waxtaane ko te ki nga xam ne la personne la mieux placée c'est le président Macky Sall il a naan il n'a plus rien à perdre. mu wax ak Sonko Sonko wax ak ndaw ñi. non jeex na. mu jeex te moom xoolal moom jeexal naa mu ngi tey démb mu ngi woon. waaw mi ngi woon mi ngi woon dem euh, Liberté fan dëkk. Euh, euh, kii non Sierra Leone mu ngi woon Sierra Leone. dafa dox jàmm. waaw donc mën na dox jàmm fii la jàmm tamit dañ ko soxla ñun ñoo gën a soxla ñëpp parce que ñun ñun suñu suuf yi di baax. ñun ñun lañu soxla ñu def jàmm. maanaam li nga wax mooy xalu ndéef la. ah oui mu ngi ci suuf dafa ne dafa dafa lëndëm nii rek nii nii waaye boo ko laalee.